mu war a bëre ki nga xamante ne moom mooy Jackson mu nekk journée Baba Diaw production di càmm production dañ koy bàyyi nag ñu nuyoo nuyoo ay mbokkam ñu waxtaan ak moom di nuyu nag suñu confrère yëpp di nuyu ki nga xamante ne moom mooy Fallou borom leeral TV ñàkk ñi ngi ma neex laay def mu doon le rek jul seen sant sama ñaari waajur aussi di leen ñaanal aussi fa ñu nekk ak képp ku ñu ko fekk yàlla boo leen di di sant waa Thiaroye gépp nag di kontaan si waa Thiaroye gépp wax dëgg yàlla di kontaan si presse bi teew tey sama open presse bi parce que amu lu yéen aussi lu mun di xew rek xam naa ne mun di xew di ngeen xool sama diggante génn ci lu rafet parce que naa ko génn parce que yombul daal waaye maa ngi leen di jégalu di leen ma saw coono baax di encouragé waat xam nga di waa di ñaanal sama supporter baax a baax a a mooy sa combat ak Jackson mu nekk combat boo xamante ni le 25 nekk journée fête Jackson nekk xale boo xamante ni espoir la nekk fi mën nañoo wax ni ren bokk na ci meilleure révélation yi sa sa diggante ak Jackson lan moo tax sa choix Jackson. waaw man la Jackson bu doon choix tey du ma ko minimiser waaye nag bu doon choix ma ne dama daa bu am fëriñ la vinaigre bu bëri non du minimiser waaye Fatou Ndiaye tey ku am ci 22 combats ak ku am 14 combats ñàkk ku ma bëreel moo làmb ji nag boo toogee bërewoo dañ lay fàtte waaw dinaa am fu ma teg sama bët da àpp bi jot na loolu comme que tamit mooy 6 ans daanu def ay ay ay ay preuve yu leer naññi waaw génn si booy yi man damaa tàmm loolu ma jël ko rek muy dernier chance booy yi mooy dernier chance booy yi dama dégg sànq bi gannaaw bi ñu la nuyoo nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw di ànd ak yow sànq dama dégg nga ne Jackson bu wàccee ma duma ko fan nga teg ne Jackson bu wàccee nga duma lépp nag. xool ñàkk jariñ bi ñu doon gis ak ñàkk jariñu bi xam tey ñàkk jariñ am na lum nar sérieusement dëgg-dëgg du maas du dara waaye dama xam ne app bi jot na app na bu jotee lépp nga indi damay xeex damay bëre te li ma ko wax duguma ci kon da nga koo bëgg a humilier dama koy duma dama koy daan si kàttan su waram bu soobee yàlla te li ma wax duguma mais Fallou ñàkk ñoo gis ni durant sa combat ak Jackson yëpp nangu woo woon sa état physique nëbbatu bi lan la xale bi nga doon bañ mu xam li nga liggéey wala lan la nëbbatu bi waaw parce que xam nga dafa am lu am laamu léegi boo xawee génn réew mi rek daam ni ñuy xoolee aussi ñi lay xaar tamit ñi lay xool daam ni ñu lay xoolee te ma ni man maa jëli wàcc jëli benn booy war a dëggal tam bopp ne carrément assaasu booy jeex na kon na war a bu ma ñëwee ñëpp xam ne carrément kii kat li mu làqatu woon Sénégal ak Europe bi yëpp récupération rek la ak gëm-gëm ni ma gisee nga jëlee booy da nga xeeb booy bi da nga ko bëgg a humilier nga da nga ko da nga ko ma nawlawul waaye man moom nii laa mel yàlla dafa def loolu sabar bu ne rëll rëll rek waaye du lii mooy nekk ci géew ba de déedéet Batali dama leen bégal wax leen seen mbër mu ngi forme super forme waaye su fekkee di géew ba seul le terrain qui commande. lan moo lan moo tax nga indi fas nga dugal fas si biir géew bi lan moo tax luñ la digal la wala lan la fas wi leeral ko nit ñi. waaw xam man conducteur la man dama jaar si dawal maa mun a man ñëpp ma xam si innovation aussi nag mbokk sama mbir moo war a bii dama war a conduire maa xool lu ma neex ma jaar dama war a dawal dama war a dawal. te may dawal maay dawal abet maay maa xool fu ma neex ma ne taxawal kor. yow yaa bëgg a diriger. maanaan Ali maanaan kor. mais dafa am loo ma waxoon dama la seet si nga ne ma Jackson dama koo xam bu baax a baax ne ma Fallou mbalaan mi muy sàngoo sax mi ngi ci man loolu ñu ne stratégie la est-ce parce que gis nañu tamit Fallou moom ak seen fan club bi. dañoo jaxasoo ndax ki yor ci bukaay xam bi ci lan la. dafa am canal seen biir xam bi ci dëkkaale la laay bu lees boro ak ñoom Babacar Saare ni ñoom xam nañ parce que ñu ñëpp ñoo far lu jàmm jàmm gën te tey boo xoolee daw ma kenn maa ngi parce que mbër laa nag sérieusement daw ma kenn waaye ñu ñoo sëkk jàmm parce que tey da ngay dëkk si kër sax am ndax mu faral keneen waaye képp koo xam si maanaam si war ko abal naal ko si xol bu sedd guy balaa mu jaar. mais lu ma wax dëgg la man nu ma waxoon man la ko ku la yàgg fanaane bu ne bay balaa fanaanoo tey war ngaa dis bopp uh-huh. ma ne ko ku rey say maam yeewu sa waajur bu góor su lay baab fa xam da nax. waaw tey xool leen ma jege xool nit ñi ma jege xool nit ñi ma jege daw ma kenn su ma ko sóoraale ay booy mi ma sóoraale waaye man maa sóoraale lii daan lamb ji loolu lii daan lamb moom laa njëkk a nekk da am lu xew fattal ma foofu fatt foofu bu yàgg amul may xalaat wala ma koy diin dama la di dimanche dama bëgg bu tey nga ne ñàkk jël waxoon na ma ko yàgg naa la dénk te bii laa lay gën a dénk tey lu mu def daanu këram lay commencé daanu ba instant daanu delluwaat këram li ma wax duguma si soobee yàlla waaw non moom non man moom xam naa dañoo jël sama tànk waaye Fatma Diagne bëri tànk laa njëkk a mun Fatma Diagne bañu moom mu dem taw senk de waaye bëgguma mu gaaw man maa bëggul mu gaaw waaye dama day dem taw senk si kàttan suñu borom mais Fatma Diagne Fatma Diagne est-ce que moom mi ñàkk fas yéene naa jàkkaarloo Jackson raak ak moom xeex. xeex waa tey nag ku la ñëw si ñàkk ñàkk jën du ko jël ci wala nga yàq jàkkaarloo ñàkk jën boo xoolee am ñàkk jën tey préparé wu la bala pisale maa gën a gaaw loolu misaal la lu leer laa lay wax amul lu may dee sama xel wala sama bëre wala sama yaram. waxal ak Jackson moom lay seetal waxal ak moom. ma ne la Jackson ci kàttan suñu borom dimanche le 25 bu nekk benn bu dooree am ñàkk jën lay yëkkati loxo. waa tiisi am na ren jéegi la xar tabaski kay sant yàlla parce que su doon naa sama famille man sama famille tax may liggéey loolu feete la wax dëgg yàlla nañ ma ñaanal si barke loolu waaw ba déggee ma naan la 2012 ñàkk bi ñu xamoon bu ko mi ngi bi cest à ñay mun na war lu gën a rëy ñay c'est-à-dire li ma a wax mooy ñi ma jàll su ma nekk di xalaat Jackson dañ ma war a rendi Fatma Diagne Jackson amul nelaw ma sax ba koy xalaat soo ma gisee ni may day nii lay def sama kër gars yi may téye sax naa ma nii waaye man maa ngi sama lal di foofu loolu ma problème li ma waroon def def naa ko ba naa ko bu nekke liggéey li ma war liggéey liggéey naa ko bu nekkee mental sport mi ngi ak man bu nekkee sañ-sañ mi ngi man bëre mu wax ma waaye bii at na ni xam damaa mën a bëre ñaar yëpp laay indi dóor mu daanu su ma ko doonee mu kaaw may jekkali ko du caaxaan de kaf ma réew ma bu soobee yàlla dama koy daan lu mu mën a def si kàttanu suñu borom. dañoo gis ne euh, côté bi nga dëkkee muy samsam 1 samsam 3 te ay xale yoo xam ne ñoo fi nekk di dem làmb tey en tant que ambassadeur lan ngay woote si non à la violence parce que am na ñoo xam ne seen yoon nekkul ci làmb am na ñoo xam bu ñu xëyee wàcc dañuy dem seen kër te dañ leen jiiñ ci yooyu xam si côté banlieue bi loo xam ngay wax ndaw ñi bi. yow daal li may wax ci loolu mooy fii nga lëkk caaro yi jàmm gën sax ah, Sicap mbëri maa leen sant di leen gën waaye seedaat nga saa bu ñu communiqué ñun mbëri nekk fii dañuy non violence dañuy wax ci xale bi parce que jeunesse gis lu ñuy daj man nee naa le premier ba léegi booy ñu ngi sama kër du lekk ku ma leen jox naan waa koñ ñooy mobiliser dañ jox lekk ak naan di ma muñal lu bëri kon ñooñu li ma leen ñaan nañu ma koy way soo seetloo si biir booy sax ku ma ci xool leen li nga bàyyi yàlla damaa dimbali ak loolu ak muñ doon mun naa dof dof loolu waaye cër yàlla dama koo dimbale ñëwul si jàmm sol ba mu rewet barki borom Tuubaa sol ba mu rewet ñëw si kaw ma def li ma def suuf si carte suma dama daan jox la man jaawee la am man bii la booy boobu la cent quinze kilos laa bëree bii nag du ma lii waaye eggul bii ma ne la

xaalis bu yokkee doon daa war yokk te yokku na waaw lépp a ngi fi wax dëgg yàlla lépp ngi fi. am naa doole. am naa sañ-sañ. billaay am naa fit. am naa sañ-sañ loolu kenn waxaale wu ko. loolu bi na combat bi nag du risque si man moom muy jógee këram di ñëw risque liggéey bi risque la lépp waaye nag ci biir yaa koy yow sa mental ak espérance bi nga am nga koy économiser rek la ba def la loolu mooy ki ngay bëre xale la. parce que dafa jugee ci Ameth Deme. Ameth ah, Deme yor kii boo xam ne macha allah ñëwaat euh, ci ñàkk jërëjëf. man ci kan laa jugee. yow ci kër. ñaata minute laay bëre. Ah, damay conseil lu nekk ci te loolu nii bu daan ñëw ñu ñëw bu daan bëgg daan ñëw daan ma. non boobu xam nga Fatou bu ñu nekkee ñi may déglu damay bëgg ñu déglu internet yi di déglu ñu xam ne wax dëgg la maanaam tey Ameth Deme daa gëj a bëre sama grand la je respecte beaucoup waaye de daa gëj a bëre moom li mu gëj a bëre pour combat am yombaat du yomb mun na téye xaalisam di xalaat après bu daanoo wala mu daan mu génn man diw ma man lamb damaa jaral nee naa xam nga jar damaa jël ay ay ay ay professionnels yoo dama leen fay xaalis muy Ibba ak xam nga coach boxeur bi ñooñu ñëpp dafa am lu ma ak ñoom pour lamb ji ma jëm kon dama leen xaalis bëri kon caaxaane boobu man ne ku xool ñàkk jariñ te si carte suñu la 25 ko day xam yokku naa wala may temps doo ko may mën naa ko may non mën naa ko may mën naa ko may may waaye li ma bëgg moom mooy 10 minutes laa bëgg a bëri moom waaye nag su ma demee sën la tee rek di commande ma demee tee bi a ma keneen koy ñibbi ah grand combat bi ñëpp ba indi mbooloo te ku ñëw ko ñëw ñooñ kontaan ko kon defe naa ñooñ bu ñu nekk dañoo topp mbër bi kon wax dëgg yàlla bu ñu toppee rek mbër dël mën na ko satisfaire waaye ni ñu koy ñaan réussir parce que li mu def yombul foo toll si mobilisation bi non loolu moo wax dëgg yàlla bii ma alhamdulilah rabbil ah, alamin loolu dama ci waxati lu ñu sant leen gërëm leen yàlla dafa leen jàmm yéen ak jàmm ñëw ak jàmm yéen tamit ñuy ñëw bu jël di ñëw man de bu mu doon làmb ji laax si combat bi kuy bëri dama lépp mbooloo ah. laa